bile ngi jooy suñu néew yi day te noppeeguñu le soleil yéene kaay ne njiitu réew mi président Macky Sall day daal dina delloo njukkal nag ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ca loru Allahu akbar mooy colonel Mamadou Traoré le capitaine Emmanuel Sarr ak l'adjudant chef Sendela Fall waaye sénégalais day ñi ngi dee ci biir réew mi waaye ña ngay dee ci bitim réew day le soleil yéene kaay ne Mame Mbaye Ndiaye di xale bi nga xam ne nag maanaam moom moo dee ca Espange waaw gouvernement bi day daal dina fay yónni nag benn délégation ma ne la Seydou Gueye kon mu yor kàddu gouvernement ba waaw nee na président Macky Sall day li mu bëgg daal ah mooy ne lépp leer li leer ba leer mooy wàllu njàng meeg njàngale mi ne am na problème de bu doy le quotidien ne kaay ne ma ne la waxtaan bi xam ne kon moo doon dox na ci diggante kon jàngalekat yi la a gouvernement bi baax ma daa mujj lajj maar day taali la ilaha illa la te gis nga syndicat yi day ñoom jàngalekat ya la ñuy sàkku daal mooy na tar ma ne la dañuy labali waatoon grève ya laa la wax <laughs> waaw waaw parce que kat G6 la ñuy ca président Macky Sall daal mooy Macky Sall ci boppam kon na góorgóorlu def nag ni président Guinée bële Conakry Alpha Condé waaw Abdoulaye Ndoye ne gis nga Guinée kee bi situation bi kon demee ba doy waar président ba ca boppam kon di Alpha Condé moo mujj jóg nag daal di dugg kon ca mbir ma di yokk na kon salaire u jàngalekat ya téeméer boo gis Alpha Condé daal dina koy yokkoon ñeen fukk 40 pour cent laa la wax da gis nga président kon war naa mën lu waaw waaw boog soobi li ne jàngalekat yi day waa xeex bi nga xam ne kon ñu ngi koy xeex ni la day day lañ koy gën a yëngal gësëm looloy dama ne la grève totale la ñu fas yéene amal na ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars day da ngay organiser nag benn marche doxu ñaxtu la te la ilaha enquête yéene kaay ne waaw ak gouvernement bi day mbir ma lajj na échec gis nga ci ji gaa ngi jege fii waaw chantage rek ak wàllum forcing jaay doole ak defal ma lii wala ma def lee maître Omar Youm mi nga xam ne nag mooy directeur de cabinet président de la république waaw nee na dama ne gouvernement bi nekkul ne li jënte ay ndàmpaayu dëkkuwaay di indemnité de logement kese la ñu yor ndongo saar nee na day wane ne gis nga gouvernement bi waaw wallaay defuñ lii sax soxla manque de volonté la enquête yéene kaay ne waaye grève xam ne moom la ñu nimiko ci wàllu njàng la ko wax Abdoulaye Xuma bu APR ci libération yéen kaay waaw nee na gis nga grève bu jàngalekat yi nekkatul ay grève syndicale waaye grève politique la xuma uh-huh. ne waaw lii laa wax Karim Wade day wax na la ko tijjee ne kaay ne Karim ne ko o fañing fañ fañ ta wàcca caax barki rasul lay dama ne bëgg bëre bañ bëre parce que Karim Wade nee na day war naa nangu ndogalu yàlla war naa nangu jàkkaarloo ak man ci élection présidentielle yi la wax Karim Wade ci bëgg sobili ne waxtu wi day jot naa ngir Macky Sall mi lay taxaw jàkkaarloo kon ak man la ilaha illallah di ko coro sar maa ne coro sar ah maa la wax parce doomu Abdoulaye njaxaanaay a yaakaaram man ci élection présidentielle 2019 ya waaye tribunal yi nee nañ ko loolee du am yaakaaram tas na moom Macky man Karim Wade maa ko wax yaay da la ko ne nga fipp na maa la ko wax ne tey nag laa gën a taxaw de ngir gagné Macky Sall mi lée ci takku sànnu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 uh-huh. Karim Wade ci tribunal yéene ka dama ne dama koy gagné 2019 je battrai Macky Diouf Omar Sarr bu parti démocratique sénégalais ci termine yéene kaay ne mën naa leen a giñal ne dootul yàggati dara Karim Wade kon dana ñibbisi ci Ndakaaru njaay jël job gi la te gis nga 2019 waaw te Macky Sall ci boppam sax moo la gën a xam ne sax dalul ne dana dem kon ca deuxième tour ya Mame Mbaye ministre tourisme ci termine yéene kaay nee mbir mi Barça ba lay ne ñi ne nguurug Abdoulaye Wade ki comme yàlla yàlli boo ñu li fi Macky Sall liggéey ak li Abdoulaye Wade liggéey bokkul laa la wax man ministre Mame Mbaye wax yokkute gi nga xam kon sénégalais yokk nañ ko day amu fi 7,2 pour taux de croissance ma la xoolal leen ma 2012

mouvement gëm sa bopp googee waaw ma nga ca ay tànku Idrissa Seck de mardi tali waaw parce que Bougane Gueye Dany day mi nga xam ne barki dee moo Njaay la jógee APR dem ca Idrissa Seck day dalal na Bougane Galaskal Dóob maa la wax maire Daaru Muxti ak maire Pekes day dalal nañ tamit Bougane Gueye Dany ak mbooloo mu bëri di ma jobi téy ak Jibo Mbay ma di directeur général u impôt domaine kay ne dama ne gis nga waxtu yi ñu nii ah, ah mooy uh-huh. maam Adama Gueye ci réew mi quotidien ne gis Macky Sall yaakaaroon ne bu ko falee day lépp daal di kon soppeeku laas soppeeku am na ca tribunal ba dee ndax maître Gabriel Diouf dàq nañ ko ci baro bi de marte Italie jabaru ndem si yàlla Babacar Mbaye mi mu ci bàyyi waaw moom la avocat bi marto juróom benn fukk ñaar ci ay millions la réew mi quotidien ne xam nga Macky Sall ne kan lay xeexal kan mooy adversaire pire un ah mooy le social wàllu dundinu askan wi waaw waaw parce na gis nga couverture maladie universelle bi taxul ñu ne ndool jeex na fi de déedéet yow semi bi ñaata la yoreel kon bërëbu fajukaay ci biir réew mi gis nga bourse familiale yii waaw juróomi junni njaboot gu ne ñetti weer yu ne dama ne loolee taxul ndool jugee fii dama ne conseil national à la sécurité alimentaire li ñu wax yokkute taux de croissance 7,2 pour cent waaye fexe leen nag ba yokkute googu dee feeñ ci leket wala bañ bi nga xam ne moom la ndumbe faal mais di gàddu di dem ca marché ba <laughs> alaaji gis nga li ci papier walaay du ci terrain le Sénégal est une terre de football teew mënatoo sax gañe amical Cabral li yi di wax nii nii ci terrain ak rajo yi ak li nit ñi di dund comme yàlla ak yàlla yi boo paree ma ne la alaaji tëjal ce programme vous